ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci jotaay bi di leen masaw ci coono yi ak jotaay bu yàgg bi ci xataayu jamono ji ñu ngi leen ci masaw ay di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dëppale ñu ci ak ngërëmal suñu borom te dëppale ñu ci dëppal Serigne Touba loolu yomb na suñu borom yàlla na ko yàlla def ginnaaw loolu ñu ngi jaajëfal mbooleem bopp yëpp kenn ku ci nekk ci gis nañu la xam nañuy coono yi nga toggoo bay egsi ñu ngi ñaan coono coono yooyu ak jéego yi yàlla def ko mu di njëggal tey def ko muy faju aajo zaahir ak baatin di jaajëfal jigéen ñi bu baax ci taxawaayu liggéey bi waa daayiratu ci organisation bu sell bi leen ci jaajëfal bu baax di ñaan ñu yàgg koo taxawe te daje ci ak seen ndërëmal mi tax ñu koy def di darajee Cheikh Khadim ñu ngi jaajëfal tamit wër taabati di ay boobu xam-xam yoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom mënoon ngaa yore bis bi ba mu jeex tàkk ci tamit réew mel ne Serigne Lamine Touré bi ñu njëkk a def taa ci mawdoo bu solo boobu mu indi te wax wax yu lay yooyu li ci gën a mooy li ci gën a di lu mat a jàpp mooy bon amul bon amul mbaax moo di cosaan waaye nëbbu mbaax wala fàttu mbaax absence am moo tax bon dikk nii élève bi waxe ne professeur am lëndëm amul ci absence leer maanaam leer bu dem ci la lëndëm amee loolu wax bu rëy la du màgg doomu aadama ci mbaax ak suñu borom tabaraka wa taala mooy gis nga mu wax ne iblis ci environnement bi mu juddoo bu di bi iblis juddoo di environnement xamuñu moom même bu fekkee ne jinne la mi ngi juddoo ci environnement wu malayka yi foofu la juddoo ñooñu suñu borom dafa leen def ay appareils yoo xam ne dañu leen a programmé ci benn logiciel boo xam ne du jóge mukk du délogé mukk ci fi ñu maanaam ñoom ci leer na leen suñu borom tabaraka wa taala bind ak jaamu ko te ko moy mukk foofu la iblis ne ko waaye mu dugg nag ci cadre génn ndigalal suñu borom tabaraka taala mu indi yonent yàlla Adama alayhi salaam li nga xam ne suñu borom taala du ko bind mu doon xam ne mbaax rek nekk ci moom suñu borom taala tere kii da koo jël nga xam ne ñaari mbir yi rek. mooy ndigal nit mooy ndigal ak tere kii la ko digal muy Iblis ak su la doon tàggu ci la ko yàlla tàggu ak yonent yàlla Daawuda ko ñaar daa jégal bàkkaar yonent yàlla Daawuda laaj ko suñu borom ne ñaar ñii nga dul jégal bàkkaar ñoom ñu mu doon mu ne ko kii def bàkkaar di ko xeet bu ma ko ko jéggal ndax boobu du tuub kii def bàkkaar di ko fàtte fàtte bi it ko ko jéggal ndax du tuub am na ñoo xam ne bu ñu defee kii bu defee lu baax wax bu ñu dikkee dañu koy delloowaat dañu koy sànni mel ne mosu ñoo def lu baax noonu yàlla du leen jéggal bàkkaar moo tax yoon ci yàlla aadama ci waaye bi ñu ko teree mu jëfee la ko tere mu amaat nag courage dellu si waat tuubal borom suñu borom jéggal ñu gis nag fekkeerlu daal di nag déclaré suñu borom tabaraka wa taala guerre loolu mooy différence bi Sëriñ Axma li mu indi ci jigéen lu am jigéen dafa ñàkk li ñuy tuddee ak quwwa jinsiya maanaam li ñuy tuddee force physique ni ñu bëgg a mu néewee ni la amee kattanu ruux muy kattanu xel jigéen dafa am kattanu xel. moo tax suñu borom tabaraka wa taala moo ñaale ko xel moo xam ne lu mu am na nu moom jigéen waaye doomu aadama surtout jigéen. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xadis wër nas sarix nee na dafa am jigéen ju dugg safar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na raa naaran wa raa fiihi mar'atan allati xattalat xerb ay xët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa koo dañ koo won bi safara gis nga jigéen doo xam ne ma nga fa ñu laaj ko lu la fi tàbbal mu ne dara dugal fi dul dafa rey muus muus rek la rey képp muus da koo deret na rey wala da koo yeew joxu ko mu lekk joxu ko mu naan muy lekk ci suuf si ba tey léegi fama baalu lazina yaqtuluuna naasa bi xayri xaq nit ñi nga xam ne léegi seen programme ak seen lépp du dara dund doo deret di rey ay milliers de personnes ci àdduna bi di def ay ijaaraat te tuur deret li muy sacré sacré li muy rëy rëy jëw nit jëw nit ñoo ko ñoo lañu boole tëral ci benn miisaan ci benn balance loolu jot yi ñoo jël nañu wax daanaka ci li ñuy xëy si tool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gis na jigéen foofa mu dugg safara te dara dugal ko fa lu rey muus kon bu ci nit ñi nga xam ne toujours ñu ngi tuur deret ak di lekk nit ñi ci di leen jëw wax bu nekk ñooñu nan mooy li seen mbir ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gis na fa koo xam ne dafa sàcc benn benn bant bu boo xam ne bant yi la rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko unir nañ ko ci safara gi mu sax ba tàkk ci la mu sàjjate léegi nit ñi nan la ñuy def ci alal yi jàmbur di ko dundalee di ko lekk ci waxtu bu nekk te duñu ci bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gis na fa ku ñuy tuddee Omar ibnu Lahi kooku moo diine yonent yàlla Ibrahim indi fi jaamu këram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gis na ko foofu léegi nit ñi ñaata yoon nañuy bokkaale seen borom yàq seen pas-pas seen aqida ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na nit lépp loo xam ne bu na ko fa bax te jëm ci lépp loo xam dana ma ko amal njëriñ kon mbokk yi borom xam-xam yi tey lii ñu indi ci seen thème yi man mii dañuy def ay diraasaat ba ay at yu bëree bëri ci kanam dama jeex sëñ am na jël ay référence ci ay borom xam-xam ak ay nit yàlla yoo xam ne ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko doon jëfee bu mel ne soxna Anta Ndiaye bu mel ne soxna Diarra te mu am sax yeneen nit yi yoo xam ne. ni mu ko waxee ñu di te bokk feneen ginnaaw loolu mbokk yi xam ne dafa am lu ñu fi dajale muy jëm li nga xam ne moom la ñuy màggalal bis bii te ñu yàgg koo woote muy sëñ moom ku jëma rëkkale radiyallahu anhu wa arda mu bokkoon ci saalihiin yi bokk ci awliyaa umma bokk ci nit yàlla yi nga xam ne moom Serigne Touba radiyallahu anhu moo ñu ko jox ñun wax ñun lépp lu nekk ci moom Serigne Touba moo wax ne Serigne Makhtar Ndoumbé ca Kokki Serigne Modou Jamaram ca Kër Makhoudia ñoom ñaar seen maqaama qurbaaniya bi mu duggee ci seen loxo ba ni ñu faatu kii naatu seen loxo benn yoon ñoo ko yoral seen bopp ba ñu fi ñu ci jóge sëñ Makhtar Mbacké ca Kokki ak sëñ Mbour Jama te loolu riwaayé bu la ko ñëpp ko nett tund yi yëpp ko xam sëriñ Tuubaa moo wax boo demee ci biir aw ji boo demee ci biir barab bi am na ay jëmi yiir yu ko yu ko wër ñëpp a ko xam jëmi yiir yooyu sëriñ Tuubaa moo gis sëriñ sëriñ Mbour Jama siyaare si ko ci njaareem mu laaj ko. ne ko ndax sa barabu maam ba sañe nañu sañe mooy ndax wërale nañ ko dara mu ne ko déedéet mu ne ko bu ngeen demee na ngeen ko sañe ndax barabam boobee jombaante na moo waral mu jël ay mag jox leen leen yii yii nekk ci wër barab bi ñu yanoo ko jaareen xamal leen ne ba ba muy yegg dafa mu laal am na yeneen raaya yoo xam ne bokk na ci lëkkaloo bi sax seex la am na yeneen yu nekk yu wax ne seen bopp wax nañu ko wax nañu ma ne ba ñu ñëwee mboolem yi tund Mbàkke bi yëpp fu waay nekk fu nekk da nga doon yor ay gëléem ak i fas di yoroon ay jën yi ko barkeeloo ci gëlëm Sëriñ Tuubaa yi di ko ne fii biir barab bii tey. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wa ardaahu moo wax ne sëriñ bokku jamaram képp koo xam ne boo ko rombee ñeent fukki kilomètre ci xayma. nga xam ne boo xëyee man faa yendu ji wala boo kontee man faa fanaani na nga fa jaar siyaar ko doo ko dem barab bii ba paju paju aajo te li may waxe moo loo xam ne doon may làmb lu ma wér la te wér na ma ne lu dëgg la ñi baaxoo xam wala ñu baaxoo am aajo baaxoo nañu am ay yoo xam ne ci la ñuy jaar gi seen aajo faj waaye barab bii barab faju aajo la bu gaaw dafa am lu borom xam-xam yi di tuddee xalaatul ka tarfatil ay ka tarfatil ay ni wala ka lamxil ka barkil xaatif boo xam ne day gaaw nekk melax barab bi bokk na ci barab yi nga xam ne aajo mën naa gaaw a fajoo noonu loolu am naa ci certitude naa ci yaqin dafa am benn sàmm man ñee ko nett li dafa réer ñaar fukki nag wala fanweeri nag mu wóor ko fépp fu ne dem na ko ba sàmm gisul nag mu ñëw ba réyéen yii laajte ñu ne ko fii réyéen mu ne xanaa wóor ko sore kon nag barab seen waxu ñu ne ko ñu nii nii seen boo waxee ñu boo léppee yow ñu ngi yëngu mu ne kon xaaral ma jàpp ñaan ko sama soxla bi mu ñëwee ba yegg si mu jàpp dugg ci biir barab bi daal di sëriñ wax jabaram bu fekkente ne li ñu lay jiiñ dëgg la soxna nag yi réew na feeñ te bu ci wenn wenn màcc daal di génn ci barab bi jaarale jëm kook yi. fekk nañu fanweeri nag yooyu koor ren mën bàyyi boobu jabaakar moom ma ko netti ci jotaayu ñu bari bi ñu ci bàyyi ko waxtu yi koy nekk li saxaay wax am na téeméeri at ñu teg mokkaloon na alquran amoon na waqafu ñaar fukki wax bi li koy wax mi ngi taxaw ci góosu dafa am loo xam ne nit bu jaamu yàlla ba yegg fa ko yàq ngir ay intérêt wala ay nett yu ko rafet bi mu koy wax dëgg rek tax mu doon nett te nee na ki nga xam ne moom la ay nagam réeroon nijaay yi neen xeema nijaay yi neen na nee na kër bi mu jógee kër na foofa euh, ko dara fi ñëw di ko ziar tudd nañ ci léegi ñëw na fii def na fi fukki fan ak juróom bu dee ci benn téere boo xam ne Thierno Moutara Tall ko wax jii ma wax daa ko fekk nee na bi mu fii la ñëw am fi fukki fan ak juróom bind na fi as lëf bind na fi juróom-benni bunt ci téere bu ñu tuddee ribaax muy téere boo xam ne ñëpp xam nañ fii la ci kër sëñ Mokhtar ci mbaaxam Cheikh Oumar Fouti radiyallahu anhu ginnaaw bi ñu defee jaww la boobu fépp ba ñëw booba xam ngeen ne li ñuy tuddee maatu sam-sam yombul ndox sam-sam léegi la yomb bi mu ñëwee da yor maagu sam-sam da koo wax ne ko indil naa la lu jafe pour bëgg rek sëñ boobu ñu ak yéen ci boppam mu xamal ko ne ko indil naa la loo xam ne lu jafe la mu ne ko lu mu doon mu ne ko maagu sam-sam mu kontaan ca lool mu ne ko da ngay ñëw ma defal la sa génne maa ngi ñaan ci xottu jafe la ne ko defal la ko ci sa génne mu ne ko mukk nu mu toll nag ma koy jox ma yóbbu ko ca teen ba sotti ko fa bokk ko ak bokki jullit yëpp man ma ko jël lépp lu ma mun ta bokk samay bokk doyal naa nga gis ni mu génne ci xayaatu anaaniya nga xam ne li ñu tuddee égoïsme grâce bu nga ci am nga xam ne lépp lu mu mun ta bokk ci bokk moo tax nit amul lu mu bokk lépp lu nit di def bu joxe ay bokkam dëgg waroon nañu ko laaj li ñuy def loolu sëñ Muxtaar radiyallaahu anhu ardaahu ku sàmm la sàmm gi dinaa ci nett ne nee nañu fa ba nit yàlla yi dañuy am seen seen gis-gis dafay mën a beneen sori seen seen xeeñ bi dañuy am flair maanaam li ñuy li li leen di xeeñ lu sori lay doon li ñuy gis lu sori lay doon dafa am aw bëy ko romb ci pénc bi mu xool ko xoolu bëgg nee nañu bi mu xëyee mu bëgg koo jënd woo borom bëy bi da ko daa bëgg nga jaay ba bëy borom bëy wa ne ko bëy wa kat dee na bii ci guddi moom ci boppam mu gis ne xool gi mu ko xooloon te bëgg ko mën naa am loolaa ngay bëtam moom moo rey bëy mu daal di koy woo ba mu ñëw mu yëkkati njëg toll ba wala mu laaj ko loo ko doon jaayee mu wax ko ko ne ko boo ko doon jaayee nangam laa ko jaayee mu yëkkati lu toll noona jox ko loolu ci sàmm la ko Abdullahi ibnu Umar radiyallahu anhu doomi Seydina Umar la radiyallahu anhu dafa am ku ko bind téere da ko uriidu an aktuba lii al ilmu kull al ilmu kull damaa bëgg nga bindal ma benn téere boo xam ne xam-xam yëpp ci nekk maanaam nga bindal ma benn bind boo xam ne xam-xam yëpp ci nekk Abdullah ibn Omar tontu ko nekk al-ilmu kabir xam-xam dafa bari waaye wa in wa in istataxta bi an tati yowm alqiyam xafifa dahr nee na ko bu fekkee ne mën ngaa ñëw yowm alqiyam sa gannaaw gii nga fexe ba mu set wicc lenn lenn ci dërëti nit ñi ak àq nit ñi toggoo woo ko ci mën na ko def beneen mu ne ko boo mënee fexee ba sa biir nga nga ñiit ko ba mu set wicc ci biir ci alal yu nit ñi ak riba na ko def mu ne ko boo mënee fexe yi ba mbooloo bi jub da nekk ci dëgg nga ànd ak ñoom foofa nan ko def ah, nga xam ne sàmm ba fexe ba. li ngay lekk dagan fexe ba ak nit ñi génn ci sa kaw it dara dëpp waxuma sëñ Mokku Jamaam waaye danaa nekk li xisa bu ñëpp di faral di xam ne sëñ Moustapha boo nekk mu mooy maa ngi sëñ am sot mii nga xam ne moo sañ ci bii ñu toog rek ak sëñ Abdou Samad ak soxna Maama Lay Mbacke ñaanal leen suñu borom tabaraka wa taala yàgg na suñu kanam ak mboolem njaboot sëñ ma ko sëñ ma ko ñu fi bàyyi ko dafa fekk sëriñ Tuubaa ngi ci géej boo fekk sëriñ bi mag ñi booba jamono néexut mag ñi amut jaaxle lool si loo xam ne moom la ñu koy defal ci la gën a jëm mënuñu koo am ñu toog di ko xalaat ci pénc bi ba mu yàgg rek kenn njabala ku mag ne jël lu seen nag nee nañu ñu daal di jàpp njabala la daal di koy rey day leen gis ne moom itam xam yow waaw bi sëriñ bi ñëwee ñu dem fa di ko seeti sëriñ bi laaj leen sëriñ boo ko jóge moom ñu ne ko kat moom jógee na fi sa ginnaaw mu ne leen waaw ndax bis ba bu fi jógee. ndaw la ma leen yebalaloon ca dëj ba ndax gis ngeen ko mag ñi seetantal ci seen xel xam ne mooy jamono boobu ñu wax ñu ne ko waaw ñëw ne leen damaa xam seenu sàmm loolu a xam naa ne bu ma fa yebaloon aw nag wala bëy wala leneen wala gëléem du ngeen koy jëfandikoo ndax da ne moo tax ma yebal ko jamono ji xam ne moom kenn moom lu mat a bàyyi xel sëñ Moustapha nee na ma keroog bi nga xamee ne bàyyi ko woon fi moom ngi dem di ko yëgal imaam Thierno Ibrahima ci yoon wi la ñu dajee Cheikh Ibrahima radiyallahu ko karal karal karal gaawar dee di ñu kar leen laaj leen nee na ñu ñëw ci sëñ sëñ Ibrahima ne ko sëñ moo fi bàyyeekoo mu ko ñu ne ko waaw mu ne ko dégg mu ne dégg naa ci fajar picc yi dama ko rek barab bii boo dem ba gis Serigne Touba yëpp ñëw na ci Serigne Abdoul Ahad radiyallahu anhu amoon na ci daal euh, Serigne Saalih moo fi mujj am na ci daal Serigne Bassirou daawu fi jóg Serigne Cheikh Mbacke daawu fi jóg Serigne Bassirou Baye bu nee mosuloo gën koo toog ñëwee dëkk bi te duggul ci barab bi taxaw fi njëkk bu doo génn ku fàttali at yi ci ginnaaw sëñ Abdou Hakim yàlla wax suñu borom bi mu fi ñëwee gi ne bu dugg oto day barkeeloo rek ci seen dossier yi ba ci biir barab sëñ Abdou keroog dafa dox ba ci biir barab kon mbokk yi loolu mooy li xam ne mënuñu su koo ñàkk yóbbaale ci jëmm ju baax xam ne moo ñu fi dajale ñun ñëpp tax ñu sànq suñu temps sànq suñu wax ci toog loolu yàlla ko mu ne yàlla na daje ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa yàlla nañu ko yàgg a taxaw mbokk yi ñëpp sant nañ jigéen yi toole yi ñëpp gis nañu kilifa yi gis nañu leen mboolem waay bàyyi ko fekk seen bataay mu leen pouvoir bi ñu dooree seen si alal yi ñebe ñoom ñoo ngi association am soxla daaw bi leen ci Tuubaa di baax yoo xam ne def baax rek la ñuy jëfandikoo kooku ñëpp ngi fi kilifa yëpp ñëw nañu fi sëñ sëñ Tuubaa yëpp ñëw nañu fi sëñ Amsa bii dina fi ñëw sëñ Amsa sëñ Abdou Lahad sëñ sëñ Basiru sëñ Abdou Hakim ñëpp ñëw nañu fi soxna Daba naa léegi nag ko léegi si bala suñu sëñ rek naa ko nee naa ko waxtu bu nekk bu ñu nekkee ci biir gis fa njabootu sëñ Tuubaa suñu xel gën ne li ñu nekk sëñ Tuubaa yàlla nañu yàlla boole taw tawfiq barke ci mu ne ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu